ay Macky ku la digal lii ay Macky ku la digal lii bu démb doon tey <laughs> non Macky Macky nag mu ngi doog a am problème ndeke mag yi dafa mel ni àqu Ousmane Sonko moo ko dal barki Serigne Touba Mbacke Macky ngi doog a am problème te problème bi kenn yóbbuwu ko ndax man sax dama sant yàlla ci lii mu def nii nga xam ne pression bi ko waa àdduna bi di teg actuellement yoonu Sonko nekku ci xam ngeen problème moom yoonu Sonko nekku ci beneen bi ci topp mooy ma ñëw ci influenceur ñenn ñi paravirgolette maanaam maa ngi gis fan yi ñu ngi def ay vidéo ku ci nekk yaa ngi xumb xuural baat di góorgóorlu naan waaw Sénégal moom li fi xew jamono yi ku ko wax saytaane nga hmm, tay kon lii xew Sénégal mu ngi doog a xew nii tey <laughs> maa ngi wax ñun xamante ne maanaam fii ngeen fi nekkoon mel ni ay xaru yàlla réew mi di tàkk ngeen di def lu leen saf seen yoon nekkul ci dara Ousmane Sonko ne leen lii ngóor si di yóotu saa yi ko defee nit dina toog buntu këram di jooy ngeen yaakaar ne day